atum xiif ba fekkee naa ko fekke woo ko jeex na ana pes bi fi nekkoon jeex na ana Ebola ana daw biir lu mu tudde ci ngóor soosu choléra tey ñu ngi ci corona bàyyi leen xel ne dafa jeex ñu di ko nettali waaye lim fi bàyyi du jeex ndax coono ndax xiif ndax mar ndax xamoo foo jëm di fexe ba fekk nit mu tëdd dee ndax xiif dara jaru kon dellu leen ci borom bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lii ma wax nag man la engagé waxaluma benn daara waxaluma benn sëriñ daara yàlla rek laay waxal te alquran yàllaa ko wax te ginaaru kenn nag nenul Iran na leer man caaf li may lekk doy na ma ñii dañuy reeree yàpp man ma reere caaf bërki dem gerte baxal laa reeree man ginaaru kenn nenu ma ba ma yëgee ne lu ma lekk lu mu neex neex sobe lay doon ti buy génn xet ga mu xeeñoon ca lekk du ko xeeñ ba ma koy génne ci duus ba laa xam ne adada lu ma naan lu mu saf-saf suukar su may su ma koy génne ci duus ba lam safoon du ko saf lam xeeñoon du ko xeeñ adada Iran xam naa sama bopp bu baax sama borom nag maa ngi koy jéem a xam te fas yéene nekk ci lim dégle waaye dellu leen ci diine ji bàyyi leen caaxaan yi nag dana soppali ko farata de ganaaru kenn nag nenu ma ba ci waxtu wi incha allah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 sur gis nga Xasan lii ñu wane bari na ci réew mi ñoo xam ne càmmoñ rek lañuy defee ba ci mbind déedéet jëlal càmmoñ nga jox ko li ma moom jël ndeyjoor jox ko li ma moom gis nga sallallahu alayhi wa dafa nekkoon màkkatal mu karam pour doxal diine te ko fa mu dem taayif pour ay najaayam jàppale ko muy abda yaalil ak mas'ud ak habib ñu toroxal ko ci tënk ndax temps bee tax mu delsiwaat màkkatal mu karama benn taalibe la am bu ñuy wax addaas addaas ko gëm ci yoon benn ak jinne yi ko kar jébbalu ci moom mu jógee fa moom yonent bi delsiwaat Xadija faatu na Aboo Taalib faatu na ñoo ko daan jàppale yàlla wan ko ne du ñoom mana bay leen nit ñi yorunu dara yàlla rekk fi ne dañ leen di tardere ak di leen nax wéeru leen ci seen borom. jeudi sur Saint-Yves. wan bi ni ko du Khadija du Aboo Taalib. samedi dimanche sur saint tey dañu ñëw si la saignement du nez ki nga xam dafay bori ban pexe lay def bori nag li koy waral souvent mooy xam nga paxi bakkan yi ay cellules yu sew dañu ko traversé yoo xamante ni pour ñu génne dara dafa yomb lu tuut rek mën na la gaañ dugal sa baaraam rek léeg-léeg li koy sabab nag bare na am na ñoo xam ne dañuy dugal seen bakkan léeg-léeg bu affaire yi wooyee ñu koy dégg seen loxo ba gaañ seen bopp seen way ñawee am na ñoo xamante ne aussi dañuy nekk fi exposition longue au soleil ngelaw mbooyee la aussi lu tàng ngelaw lu tàng ñu wax mbooyee aussi buñ tollee si yenn période yi lay indi jafe-jafe na tax saignement boobu yomb ñi am aussi allergie wala soj yomb leen dana leen di dal ndax bu la dalee nag nooy def ki mu dal moom si saa si nañ ko wutal glace ñaareel bi mooy bu ñu amee vinaigre nañ jël benn coton rek ñu tooyal ko vinaigre su fekkee aussi da nga am nen nen nen bu nen bu ñorul da ngay jël xott bi nga lakk ba mu nekk dóom su ko def samedi dimanche sur Sen bañal ko moytul ko dundal ko ni jàmbaar ni bégal ni bégal ko dafa mel ni jigéen dafa mel ni liggéey ci liggéey juru gàndu ca daw te li nekk di def na ko def def asalaamaaleykum waa Gambi asalaamaaleykum sama askan sama xarit am di jàmm soppe man Wally Balago Seck maa ngi leen di jox ndaje this month. Inch'Allah, 18 and 19 ca Gambia. le 18 ak le 19 février ca Gambia ak waram nag ñu ànd ceeg Mohamed Touré ah bàyyi Wali Touré borom ah, Wali family shop so maa ngi bégg ñëpp soppe xarit am di jàmm fanta ne leen ci rek incha allah ñu ngi ñëw ànd ak waram daal pour bégal leen comme d'habitude lu mu ñàkk nag faaw dafa yàq.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 هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaanal sunu kilifa gi Haj Bougane yàlla sàmm ko ñaanal ndóoy ak saale dañuy ne rek euh, démb ñu ngi woon ci ilimaan ju jigéen ma ne la du jiite à jigéen ñi ma la tudd la sama yaay moo ci gënal ci sama yaay du ma roy ci moom parce que njureel la ma séq ak man li ma war en tant doom ci yaay dinaa ko def falaa sama digganteek sama borom am naa lu ma ca moom loola laay dem yàlla moom moom moom suma yaay moom suma baay moom nit ñi ñépp kon li bëgg rek laay def duma seet lu neex mbindeef xalaatuma ko yéen a xam nag doxal leen ngeen xool ba ëllëg xam nga nit ñi euh, ndooy dañuy dof doflu lu tax ndooy sa sëriñ sama sëriñ sëriñuy seetaan est-ce que kenn ku ne ñu ci bari sax buñ dee seen sëriñ dana ñëw mais duñ leen jullee suñu yoree alal nag dana ñëw pour mos ca alal ja pour it jël taawu góor gi def ko seen taalibe ndax seen bàyyi seen taalibe la woon mais taalibe pàccana la xaalis yeewu leen liggéey leen dimbali seen ndey ak seen bàyyi ak seen bopp ku ca xaj ngeen boole ko ca yàlla dañ ne ko yenent bi lañ laaj yàlla tontul ko ndimbal moom loo ci xamu mu xulli la afwa yàlla ne na li nga yor ku ca xaj ku ca xaj soo defee la nga war a def ba pare bu desee dimbaleel keneen su fekkee nag boo joxee yow ndooy sa soxla jox sa bopp jox say kilifa falayam bul wóor yaa baax yaa baax yam def ko fala yàlla sant doy na def nga fi la yàlla sant doy na parce que yaa baax mu ngi yem ci fi la yàlla sant boobu nga koy dugal <coughs> waaye ñun moom laa hawla wala quwwata rek boo yoree way way Iran ndaw dafa baax Iran dafa lii ngay xëbar xëbar moo tax gaa yi sàcc xaal di sàcc rek ñoom ñëpp ay sàcc lañu waaw sàcc rek sàcc rek loo jekku sàcc jigéen du doon imaam ñiy commentaire nag ci seen bopp ak seeni war sabak seen affaire la xam nga man buur euh, yow ndooy li ma bëggoon wax sa far ji sama làmmiñ jiitu na ma wax ko man buur laa ndooy nee buur la jeex na kon ñaari buur lañu yaay sama caméra buur waxtaan buur waaw mais jeex na xam nga luy buur ndooy doo dégg lu la naqari doo gis lu la naqari doo dem fu la neexul doo wax lu la neexul doy na waaye ku ne buur nga dëkk ci xuloo rek ñu dëkk ci la saaga ngay xool rek ngay xuloog nit ñi rek yow doo buur noppalu leen bàyyi leen nit ñi ni ñu mel ngeen mel ni ngeen bëgg a mel loolooy àdduna xale baa ngi nii saali bu daar yi laaj ko ndax am naa yuutu awma ko bi ci des du lu mu tudd Facebook amuma ko man doy bañuma kumpa bañuma kumpa man li nit ñi wax dafa maa ñorul bëgguma koo xam xanaa loolu neex euh, doy doy na ci man li ñuy wax moo ma intéressé man bi ma xasee jàngal Qur'an xam li yàlla wax booba loola doy na ma waxi keneen doyu ma intéressé wu ma maa ngi ci li yàlla bëgg rek la ma ca man la ma ca tëlee ma bàyyi ko ñaan ko mu may ma kàttan jeex na. àdduna da noppal sa bopp waaye ilimaani jigéen fu mu am ngeen bëgg koo laay dugg fii génn yonent bi nangam nangam di sosal Muhammad ci mbind rek mbind ku ci sosal kilifa yonent bi fekk ci ci asgar téere hadis la asgar na benn jigéen bu toog julli jot mu ne yow doo jóg jiite sa waa kër mais loolu ku la ne wér na su dee wax na ko jëfu ko ñu gis ko Aysa mas sa jiititi moo fi raw Xadija ma su jiite Safiya mas sa jiite Ramlatu mas sa jiite soxna yi mu am kenn masu masu ci jiite nit te kaay ma wax la bu ay jigéenam jiite woon danañ ko seetaat parce que topp loowuñ ñu Muhammad li ko yàlla jox mu indil ñu ko la ñuy topp dañuy xool ndax loola ci li ko yàlla jox la bokk wala bokk ci su ca bokkul duñ ko jëfandikoo parce que yàllaa ko yónni il faut nga yegg foofu ci xalaat bul nangu ñu tëj sa xel dugal ci liñ bëgg nag ko nga gëm lenn baaxul da ngay gëstu nag ah ah de loolu laa ci xam gëstu baax na jigéen du jiite jigéen jigéen du jiite góor jigéen ci gannaaw góor lay topp lu ma fi déggoon droit de la femme amuloon amul ak droit de l'enfant amul am na walla amul droit de l'homme amul dugaluñ ko yow alxuraan wax la droit bi nga bàyyi ko fa di bind sa droit yi bopp foo ko teg nga bëgg ñun ñu jëfandikoo sa bopp bàyyi sunu borom bi la bind bind ñu bi mu tëral ñoo lànk ñoo lànk ñun doomi alquran lañu doomi daara lañu jaamu yàlla lañu loolu lañu gëm droit de l'homme droit de l'enfant droit de la femme droit yëpp mu ngi ci alquran ku ñu indi leneen lu dul alquran man Iran gëmuma ko topp ko fan lañ koy teg teguñu ko fen ah waaye yéen bërki démb ngeen di xuloo fii ci ñu voté ñu d'accord ci jàngale ci école yi góor ni góor guy sëyee góor amul jigéen ju war a sëyee jigéen amul loolu ngeen commencé ko bëgg koo jàngale ñu neen waa xaw ma efi xaw ma waa feneen yi xaw ma waa fanaan ñoo ko xalaat ngeen bëgg xëy song daara yi daara yi da ngeen faa dégg loolu déggu ko fa benn saay-saay nag mën na ñoo sosal loolu suñu yoon nekku ci yént yàlla Moussa sosal nañ ko ci jigéen lu ci sunu yoon ay Aïsa tuumaal nañ ko ci njaalo Aïsa laa wax danaa ci ñëw sayyidatuna Aïsatu bi yonent bi takk ci six ans ñu jox ko ci neuf ans mu am dix huit ans yonent bi faatu mu dund soixante six ans quarante huit ans célibataire kii tuumaal nañ ko njaalo nit lu mu àttanul amul nit sañ na lu ne bu xasee yàqu sañ na lu ne làmmiñu wii su yàqoo lu ne mën na ko cee wax danaa la ko indi indi woon naa ko de indi naa ko ba nekkee Medina su ngeen ko jeexee gis ko ci net bi te loolu amoon na fi pour lan ay saafi raw yenent bi moo ne ana madinatul